Thierno Lo nag euh, dafa métti lu lu baax a baax euh, li nga xam ne xewoon na la ci assemblée nationale le député di Amy Ndiaye bokk Benno Bokk Yaakaar nga xam ne nag euh, dañ ko fa attaqué député yi di Massata Samb ak Mamadou. ñaa te bokk Yewwi Askan Wi te sax ci loolu ki nga xam ne moom mooy mamadu Niang weq ko ca mu ne nag mbir bi métti na ko lool moom Thierno Lo moom nee na sax dóoru ko kii di Massata rek la gisoon waaye ca ginnaaw ko bi mu gisee weq bi nga xam ne kii di Mamadou Niang weq na ko député bii di Amy Ndiaye mu ne loolu métti na ko lool te loolu daal soxor ne ko weesu ba sax sax moom muy sàkku ci kookulee di mamadu Niang ñu yóbbu ko euh, kaso te it di woo ñi nga xam ne kon ñooy état bu Sénégal ñu jël seen responsabilité ba yii ni mel bañ a amati ancien procureur de la république Serigne Bassirou Gueye moom nag Macky Sall da ko tabb njiital office national de lutte contre la fraude et la corruption muy of nag loolu nag mu ngi ko amal démb gannaaw décret bi nga xam ne sax euh, fësal euh, nañ ko euh, mu nekk ni nag kookule di Serigne Bassirou Gueye moo uutu kii di Seynabou Ndiaye Diakhaté ci bopp of nag xibaaru bitim réew benn ponk lay doon muy nag euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, pays union européenne yi ak nag ñi nekk ci G7 euh, ñoom nag fi mu nekk nii daal dañoo daal kon tënku ci ne pétrole bi nga xam ne Russie moo lañ koy jaay baril ba 60 dollars kon lañ cay def kon dootuñ ko weesu ñu ne loolu nag li ko waral ñoom ñoo ñoom yooyu la dëkk dañoo bëgg daal. Russie du amati ay koppar yu takku ci li nga xam ne moom mooy pétrole bi muy jaay ngir mën a financer guerre bi nga xam ne mu ngi koy amal fële ca Ukraine ñu fàttali nag euh, guerre bi guerre guerre Ukraine boobu ñu tàmbaleek léegi waa Russie euh, li nga xam ne moom mooy pétrole bi ñuy jaay euh, Union européenne jët nañ si am lu toll ci 67 milliards de dollars wala boog 67 milliards d'euros xibaaru sport lañ koy jeexalee démb nag euh, gaynde yu Cameroun les Lions indomptables ñoom ñoo dóor Brésil 1-0 ci coupe du monde wante nag loolu terewul ñoom euh, éliminé nañ leen kon bokk nañu ci boobule euh, coupe du monde wante loolu nag nekk na résultat boo xam ne résultat bu am solo la ndax sax lii mooy lu njëkk ab équipe africaine di dóor Brésil ci phase finale bu coupe du monde ca geneen ga itam Maroc moom moo door Canada. ba loolu tax moom tamit mu qualifié ci li nga xam ne moom mooy euh, li ñu naan euh, euh, kon ba mu qualifié kon huitième de finale loolu sax tax ba kon Maroc dina yegg ci yooyu la demi-finale loo xam ne gëj na ko def depuis mille neuf cent quatre-vingt-six loolu la ñuy la cee xibaar am seen teewlu lañ jox ci ëllëg jaa ngeen jëf